saaru système la daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom moom ñu am talent la ñu doon ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat leen ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di forme waat ndax ne daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy waqfu la ñuy taxawal lan mooy waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te njariñ li man fii nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn nag ko société mbay indile bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi sabilillah comme nga joxe ko ci projet bii man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci bii kon mbokk jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange Money loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 francs ak lu ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax mille francs dana bari ci moom amaana ab cinq cent la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàlla fay ku bokk rek mu boole la ci kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di a bokkal ci lii kon gaawal boo boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga mën ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci te dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala bokkee xarit yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci Fafa TV ñu ngi dellu siwaat di am mbégte kontaante àndaat ak yéen ci seen émission euh, actu commenté actu commenté mu nekk émission boo xam ne dañ leen koy amal chaque semaine ñëw jàngat lenn loo xamante ni lu la ci actualité bi nga xam ne am na ci semaine bi tey nag bu ngeen gisee plateau bi xam ngeen ne am na tuuti changement euh, ki nga xam ne moo daan ànd ak ñun al oustaz Mouhamed am tuuti ngant rek macha allah ñu koy nuyu di ko ñaanal nag euh, ci li mu nekk. Euh, ngant la mais ngantal jàmm la alhamdulilah ñu koy ñaanal di ñaanal mboolem ñi nga xamante ni ñoo koy safoo noonu rek ci la ñuy profité daal di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu àndal ci plateau bi docteur. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi lay fay nuyu. di am ngeen jàmm waaw ñu ngi am jàmm bu baax a baax. alhamdulilah naka njaboot gi ñëpp baa ñëpp a si jàmm. ñëpp si jàmm alhamdulilah alhamdulilah macha Euh, noonu la ñuy profité rek waaw ma bàyyi la nga nuyoo ak di nuyoo ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. jërëjëf Cheikh Moussa ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi nga xam ni ñoo ñuy topp ci biir Fafa TV moo xam ñi nekk ci biir réew mi la waaye itamit ñi nekk ci àdduna bi n'est-ce di santaat suñu borom bu baax a baax ci ay xéewalam di amaat mbégte vraiment ñëwaat jàkkaarloowaat ak ñoom ci suñu émission bi nga xam ni moom mooy actu commenté. waaye tamit comme ni nga ko waxee léegi ginnaaw bi ñu nuyoo al imam Mouhamed Sow nga xam ni moom dafa am ngant mais ngànt loo xam ne ngàntal bànneex la macha allah ñu koy ñaanal suñu borom bu baax a baax mu def ci tawféex xam naa bu fekkente ni téléspectateurs yi bëgg nañu wax ngànt mi après ñu ñu wax ko de. ñu tàggu ko après ñu tàggu oustaz d' bu ñu tàggu oustaz bu ñu joxee ñu wax leen ngànt effectivement ngàntal bànneex dëgg la mu ngi noonu mais Moussa xam naa nga baal ma balaa ngay présenter sa gan uh-huh. ah mooy ki moom moo remplacé n'est-ce pas. al oustaz naam mooy monsieur Amadou Traoré Amadou Traoré nest donc nga xam ni moom mooy directeur institut supérieur d'informatique bu kaw la dëgg yàlla mu nekk un ami un frère kuy jàppalante ak ñun vraiment donc ci liggéey bi vraiment donc euh, mu ñu am mbégte bu baax a baax tey aussi dalal ko mu nekk suñu chroniqueur n'est-ce pas donc mu war ñu defal ay analyse kon mu ngi noonu. macha allah merci beaucoup docteur Bamba comme ni nga ko waxee rek euh, monsieur Traoré maa ngi lay nuyu. sëñ Moussa ñu ngi lay ziar bu baax alhamdulilah. bu baax a baax dalal la fii ci studio al imam Ali Badara Ndaw. jërëjëf jërëjëf. di kontaan lool sëñ Moussa di nuyu aussi docteur Bamba un frère. un ami voilà koo xam ne on partage beaucoup de choses dans le secteur de l'éducation tamit di kontaan trop ci invitation bi ma am fii di wax ne c'est une fierté chaise bii ma toog sama oustaz a fi doon toog. voilà doon doon kontaan dama oustaz. ah loolu loolu loolu mbégte la waaw ñu bu ñu nekkee xale. donc maa ngi koy di ko nuyu bu baax a baax a baax oustaz Mouhamed Sow di nuyu aussi seen mboolem téléspectateur waaw di Fafa TV di chaine boo xam ne dañ koy ñaanal yàlla yokkute voilà donc ak euh, xéewal yu kawe kawe ndax liggéey bu am solo lay def waaw donc une information sûre et sur mesure man noonu laa leen wax ci la Fafa TV nekk. donc dinañ gën a wéyale ci waxtaan di kontaan lool voilà di nuyu seen mboolem téléspectateur yi. macha allah jërëjëf euh, monsieur Traoré comme ni ko docteur Bamba waxee rek directeur école la ISI euh, fii ci euh, Kaolack. ma ñu am mbégte bu baax a baax di ànd ak moom waaye laataa boobu rek damay dem ba kooki ki nga xam ne moom mooy kilifa gi Serigne Makhtar Naar loo mi nga xamante ni moom moo jiite daaray kokki di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér gën a guddal fan wi lool waaye it yen bi nga xam ne moom la yenu ci liggéey lislaam bi yàlla dooleel ko ba nga xamante ni mu yegg foo gën a kowe njortoom noonu lañ koy ñaanalee ñi nga xamante ne ñoo ànd ak moom ci liggéey bi yëpp mboolem koo xamante ni yaa ngi jàpp ci daaray Koki moo xam yaa ngi ca daara moo xam yaa ngi ca biti waaye ngay def loo xam ne lu jëmale liggéey bi kanam la ñoo ngi lay ñaanal yàlla yàlla taxawu la foo mën a nekk defal la jàmm defal la xéewal loolu nag ngeen gisee nuyoo boobu nag ngeen xam ne daaray Koki dafa defati loo xamante ni euh, maanaam euh, jaloore laa ko mën a tuddee ndax bu ngeen fàttalikoo comme que yéen ay directeur u école ngeen kooki dafa nekk centre boo xamante nii maanaam fait partie des meilleurs centre ci Sénégal maanaam chaque année dafay def résultat yu ama am solo ci noonu nag ñu gis ne euh, fan yi son excellence dafa am ku mu nommé koo xam ne fa la jaar jàngee fa jógee fa dem Al Azhar jàngee fa ba ni mu ñëwaatee sa Anta Diop am doctorat muy Jim Ousmane Dramé euh, xam nga ko personnellement waaw Jim docteur Jim Ousmane Dramé bon ah. c' vrai nag xaw ma ko nag personnellement. Ah. mais bon yàgg naa koo gis gis mm. peut-être xëy na ay ay ay njàngalem. waaye tamit peut-être xëy na yàggoon xam ne itamit n'est-ce pas donc c'est un vraiment c'est c'est il est c'est quelqu'un donc dans l'enseignement mu nekk en tout cas un maître de recherche n'est-ce pas donc à l'institut fondamental donc d'Afrique noire comme ni nga rek mu nekk vraiment mbégte wax dëgg yàlla si le fait que le président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas nommé ko en tant que le directeur des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés arabes. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. Euh, noo gisee nomination ak place bi nga xamante ni yàgg nañoo xaar depuis son excellence euh, monsieur le euh, président de la république bi mu annoncé ne dina def dina def poste boobu noonu ñu ci doon xaar kan la ko war a mais noo gisee ñu tànn ko le fait que moom ak. personalité yi nga xam ne yëpp war nañ ko mën a jiite ci Sénégal ñoom ñu tànn ñu tànn ko ci moom jiital ko. Cheikh Moussa xam nga ñun personnellement dañoo bokk si ñi nga xam ne dañoo fal son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tout cas ñu bokk ci 54 pour cent n'est-ce pas de des yi nga xam ne ils ont élu donc le président de la République. kon nag mooy jox nañ ko lépp loo xam ne ne en tout cas moom ci boppam jàpp na ni bu ko defee rek nest pas donc njariñal réew mi la. Euh, comme ni ma ko waxee léegi ñuy féliciter di ñaanal euh, le docteur Jim Ousmane Dramé ci nomination bi nga xam ne son excellence def na ko di ñaan suñu borom defal ko tawféex ba xëy na peut-être li nga xam ne mooy son excellence li muy séntu ci moom en tout cas ci délégation boobu ndax moom bi mu demee nañ fàttali ko ne direction la waxoon la koy def mais tout récemment nee sax da koy sax def une délégation maanaam dafa mel ni sax direction bi dafay gën am n'est-ce pas donc une certaine ah bon Cheikh Moussa man personnellement dama jàppoon ni cette direction des affaires religieuses poste bi nga xam ne ni moom lañ fa waroon nommer dafa waroon nekk on appelle à candidature man loolu laa jàppoon man personnellement te man jàpp naa ne wax dëgg yàlla. est-ce que jàpp na loolu am na mais da nga ko yëgul rek. ah mais ñoo ñoo ngi xool ay CV. di su su fekkente non appel à candidature bu ko kenn yëgul kon nekkatul appel a candidature n'est-ce mooy maanaam dangay ngay lancer un appel nga ni man léegi ci bala boobu da ngay les conditions nest donc euh, pour yi nga xam ne moom la ñu nit yi war a remplir pour mën a occuper sa poste. léegi nga leeral ko. léegi ñuy wax ne son excellence nommé na ko te gisul ko xamu ko. waaw loolu maanaam loolu loolu nan a loolu du appel à candidature. appel a candidature. Hmm. mooy da ngay tëral condition yi nga xam ne ni poste maanaam képp ku ko am dina ko remplir ñu mën ko jox léegi nga lancer cet appel léegi képp koo xam ne jàpp na ni moom war na remplir na en tout cas condition pour mën a occuper poste mu ñëw postuler loolu mooy appel à candidature léegi buñ ko defoon n'est-ce nga xam ne du ñàkk peut-être xëy na ñu si bari ñu koo xam ne rek jàpp nga ne yow poste bi di ko mën a doxal di nga mën a postuler léegi nag bu ñu defee peut-être une sélection peut-être d'une dizaine quinze jusqu'à vingtaine n'est-ce pas donc des personnes yoo xam ne ñun ñëpp jàpp nañ ne peut-être xëy na ñii ñëpp en tout cas ils ont les critères pour pouvoir diriger ce poste alors là sax dans ce loolu noon son excellence mun na tànn bu ko neexee ci présélection yooyu mu tànn koo xam ne ni peut-être xëy na s'il ne fait pas l'unanimité ou bien le consensus moom ci boppam dina ko tànn les présélectionnés ñu mën a bokkaat ci ci ci ci direction des des des affaires religieuses boobu maanaam lii c'est mon analyse personnelle mais teggiwul ni comme ni ma ko waxee léegi ñu ngi féliciter le docteur Jim Ousmane Dramé di ko ñaanal ndax yéen bu diis nest pas donc la amee n'est-ce pas donc ñu koy ñaanal suñu borom vraiment defal ko tawfeex mu réussir n'est-ce pas donc cette mission ndax nekk dafa nekk nekk nekk dafa nekk mission boo xam ne yombul su ma ko mënee wax noonu. ndax su fekkente ne yow da nga war a lënkale këri diine yëpp yi ci Sénégal ak association islamique yëpp nespa ñu war a liggéey peut-être xëy na ak nguur gi xool naka la ñuy doxalee waat en tout cas bennoowu jullit yi moo xam ci wàllum croissant lunaire moo xam ci wàllum woor ak woreendoo benn yoon waaye itamit lépp loo xam ne nii dafay doxal nest donc ay jëflante moo xam ci wàllum religion ak état te du nekk religion islamique kese Mhm. moo xam religion islamique la ak. keneen koo xam ne ak sax ñi nga xam ne ba tey jàpp amuñu képp ko am gëm-gëm daal. képp ko am gëm-gëm moo ngi mais encore une ñu ngi ñaanal le directeur Diouf. mais bu ma la déggee bu ma la déggee ngay ni ngay analyser yow dafa mel ni euh, parfaitement d'accord ci nomination bi wala ndax <laughs> wala ndax da nga gis da nga gis yeneen yeneen personnalité yoo xam ne jàppoon nga ñoom ñoo gën a yeyoo ñu. Euh, jox leen xam nga su ma <laughs> ñeneen ñu gën a yeyoo bon en tout cas man euh, mënuma wax loolu mais xam nga boo gisee li tax ma ne lancer appel à candidature jàpp naan en tout cas dinañ ubbi n'est-ce pas donc peut-être chance yëpp doon fini nag itamit peut-être pourquoi pas ndax mooy li ma la wax léegi c'est un c'est un boo xam ne ni nekkul post bu yomb man jàpp naa ne sax le président am na ñu bari ñoo xam ne peut-être woo na leen peut-être sax ñu gàntal man loolu man jàpp naa ndax daf nekkul euh, liggéey poste boo xam ne lu yomb la mais en tout cas àla kulli haal comme ni ma la ko waxee je suis parfaitement d'accord ndax man dama bokk ci ñi nga xam ne botal nañ son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon nag lépp lu mu dogal ci loo xam ne ni c'est pour jëmal kanam Sénégal dama ci ànd mais nag terewul nag su ma amee sama. analyse personnelle sama opinion dama koy wax. si am na solo macha allah jërëjëf docteur Bamba macha allah analyse bi am na solo monsieur Traoré xam naa ne un mot rek ci nomination bi. di leen rejoindre di la rejoindre d'abord ci sa contentement ci buñ am. voilà donc par rapport à la nomination du de docteur Jim Ousmane Thiam du Ousmane Dramé donc di ci am contenté bu rëy ndax li président diggoon ñu mu ngi koy feddali mooy jox xam-xam xam-xam place am bi mérité parce que daf nañu woon les hommes qu'il faut à la place qu'il faut donc soo xoolee nit ki son discours bu mos am ak son parcours sa xel dina daal parce que ci as tuut xam nañ ci moom ne c'est un spécialiste dans aux dynamiques religieuses du Sénégal bind ci ay articles yu bëri kon ko ku xam réew mi la ki xam pàcc pàcc réew mi religion yi donc gëm naa na ci am rôle bu am solo bu mu ci mën a jouer li ci des nag mooy xam-xam du doy xam-xam du doy mu am qualité bi nga xam ne moo ko mën a dimbale ci liggéeyam mooy wàcc. am collaboration boo xam ne dina mucc ayib surtout nos chefs religieux loolu am solo parce que c'est c'est c'est bu xaw a compliqué mais nag man lu ma am yaakaar que Jim dina ko dina ko dina ko réussir parce que c'est un brillant intellectuel et ñu ngi koy ñaanal yàlla ci poste boobu mu nekk une parce que réussite day nekk pour tout le Sénégal incha allah rabbi macha allah euh, merci beaucoup am na solo maanaam man li tax sax ma gën ci am yaakaar mooy Jim Ousmane Dramé docteur Jim dafa nekk koo xamante nii maanaam pas ci xam-xamam ak yu mel noonu mais jaar-jaaram aussi boo xoolee réew mi euh, maanaam lu jafe la ñu mën ko euh, ñu ñu am luñ koy rapproché ci wàllu maanaam fii la féetee wala kii maanaam koo koo nit la koo xam ne mën na dem man na demlante dikkalante bépp képp koo xam ne jullit nga ci Sénégal ak foo mën a far moo xam ci tariqa boo mën a féetee maanaam mën na jëflante ak yow loolu moo tax ñu gën a am yaakaar ci ci nomination boobu. mais nag Cheikh Moussa yow bu la déggee dafa mel ni yow dafa mel ni yow est-ce que le docteur Dim Ousmane Dramé nekkul sa mbokk. non maanaam nekkul mbokk peut-être mën na nekk mbokk Sénégal ñëpp ay mbokk lañ. waaw effectivement maanaam su ma nee mbokk maanaam mbokk bu xaw a jege. bon man nag sérieusement waaw man nag ma la waxee dëgg rek man yaayam moo may jox sagar maa ah. comme ni nga koy waxee non yow non yow yaa ngi soog a wax kay moo tax moo tax nga waaw te <laughs> sa mère mi ngi mi ngi yeewoo fii nii mi ngi yeewoo fi Passy waaw parce que Sénégal moom wax fa dëgg yàlla presque ñëpp mbokk le mm-hmm. mais man ci contentement mooy am ci fal bi mooy kokki dafa am lu mu joué ci Sénégal kokki dañ ko war a joxaat li moom kokki bi mu formé ci cadre li forme ci ñu yor économie Sénégal tey su fa delluwaatee tànn fa ñëpp dañ ci war a kontaan. loolu muy benn. ñaareel bi nag mooy euh, côté affaire religieuse et je pense que on parle d' affaire religieuse il faut avoir certaines aptitudes nekkuñ wax koo xam ne arabe rek la mun a wax. wala koo xam ne amul une ouverture des enjeux du monde. tout à fait moo tax ma je pense que tànn universitaire. Mhm. dafa am solo. tànn ki nga xam ne mu ngi ci ket mu ngi ci recherche. c' est un enseignant loolu dafay am solo yi xam progression yi yi xam dynamique yi yi xam enjeu yi dans le monde entier je pense que loolu tamit bokk na ci tànn buñ ko tànn. gëm gëm naa gëm naa loolu. effectivement euh, parce que euh, ñu ci ëpp suñuy affaire religieuse rek dañuy foog ne affaire tarixa kese la. tout à fait loolu erreur la. affaire religieuse dafa ëmb lépp. lépp waaw te ñëpp bokk ci ci religion même ñi nga xam ne sax nekkuñ ci diine l'islam des affaires religieuses. tout voilà donc loolu am solo la ñu bàyyi ko xel te ñu ngi ñaan rek. Mhm. waa donc a euh, monsieur Jim Ousmane Dramé. Mhm. mu ibbeeku. macha allah waaw Sénégal ku fi nekk foog nga am ibbeeku. mu am xol bu ibbeeku. ëmb ñëpp. suñu mbir yi mën a dox ñun ñëpp incha allah. dama lay rejoindre rek ci li nga wax ndax dafa wax loo xamante ne dafa am euh, lu may fàttali loo xam ne jaadu nañu leeral ndax kooki man mii fa laa jàngee alquran yàlla dogal na it fa laa jàngee arabe ba am fa bac aussi it euh, même euh, français. donc léegi ñun bañ fay nekk boobu français bi demeewul noonu mais pour le moment nii boo dégg mayen la il fait partie des meilleurs centres du Sénégal maanaam euh, ñi nga xam ne dañuy dégg kokki jàpp ne dañuy jàng alquran kese la ñuy jàng mais kokki dafa nekk centre boo xam ne maanaam école la école la boo xamante ni tey boo demee franco arabe la am na ñoo xam ne français kese la ñuy jàng s maanaam ay cadre boo xalaat rek da koy génnee ci Sénégal. waaw cadre boo xalaat rek da koy da koy génnee ci Sénégal. Euh, beneen bi mooy am na loo xam ne maanaam depuis lu yàgg la nekkul ne euh, Serigne Matar mais Serigne Ahmad Sakhir la mi nga xam ne moo moo sos kokki dégg naa da daan wax boo ñëwaan ci daara ji di jàng danaan la boo duggee ci daara ji nag mbubb mi nga sol indiwaale ko da koy bàyyi ci buntu daara ji boo jàngee ba ñibbi nag solal sa mbubb dem loolu lim si jublu mooy ak foo mën a féetee boo ñëwee ci biir daara ji moom ñëpp ay ndongo la te aussi foofu noonu duñ fa wane fii laa féetee wala fii laa féetee ñëpp maanaam bu la neexee nekkal murit nekkal tijaan nekkal xaadir bokkal fu la neex mais ci biir daara ji moom ñëpp a yem waaw même même ba ci ay doomam tey boo duggoon ci biir daara ji doo xàmme kii doomu sëñ bi la kii ndongo daara la bu jógee feneen loolu loolu it mu nekk loo xamante ni lu jaral lu jar a leeral. pour rejoindre rek Moussa mu nekk lu am solo n'est-ce pas donc foofu nga xam ne ni mooy Koki comme ni nga ko waxee pour confirmer ni effectivement aujourd'hui Koki n'est-ce pas donc c'est un centre d'enseignement nest pas donc général même su fekkente ni autant xëy na alxuraan lañ ko xamee woon. mais léegi ñun ñëpp xam nañ ni kokki léegi dafa évoluer surtout li ngay wax am na ñoo xam ne uniquement alxuraan kese la ñuy jàng am na ñoo xam ne uniquement français kese la ñuy jàng am na ñu nga xam ne dañuy boole ñaar yëpp waaye pour revenir un peu ci jaar-jaaru le docteur Jim Ousmane Dramé nga xam ne c'est un pur produit n'est-ce pas donc de l'école coranique sénégalaise mu jàng ba am bac dem fële ñuy wax Égypte et bi muy jàng Égypte à à l'université d'Alexandrie Al Azhar al azhar du moins mu ngi fa doon defaale en même temps mu ngi il s'est inscrit aussi ci au centre culturel français pour xam ne rek effectivement mu ngi doon jàngale n'est-ce pas donc français après si la ñibbisi fi foof dafa am licence mu ñibbisi fii continuer par son parcours n'est-ce pas donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar léegi nag sànq li ma doon wax ci sama analyse mooy man poste bi par exemple man maa si loon séntu ku mel ni par exemple le professeur El El Hadj Rawane Mbaye. Rawane Mbaye Mbaye. Mhm. le professeur El Hadj Rawane mhm. ou bien le professeur docteur Khadim Mbacké. Mhm. pour ne citer que cela. <laughs> ñaar ñooñu par exemple. ñu si mel ni ñaar ñooñu maa ngi leen si doon xaar. juste rek pour feddali n'est-ce pas donc li ma doon développé sànq muy lan appel à candidature bi. waaye nag terewul ni ba léegi itamit ni ki nga xam ne mooy le docteur Jim Ousmane Dramé tamit ñu koy ñaanal nest pas donc yàlla woyofal ko yéen bi. te li monsieur Traoré wax léegi mu nekk n'est-ce pas donc koo xam ne dafay am une ouverture ndax Sénégal nest dafa bari vraiment donc ay peut-être xëy na su ma ko mënee wax yenn courant n'est-ce pas donc religieux mu nekk mu war a nekk n'est-ce pas donc une nekk rek uniquement dans la religion islamique mais dans toutes les autres religions mais aussi lépp loo xam ne nii nest dina ñoŋal en tout cas Euh, ñi nga xam ne nii ñoom ñooy dund seen diine fii ci Sénégal ak état. voilà merci beaucoup macha allah am na solo trop tey moom xam naa ne <clears throat> ni ñu ubbee am na solo mais directement rek noonu la duggee ci point yi nga xamante ni moom la ñu war a waxtaanee ndax boo xoolee li ci dafay dellu ci njàng ak njàngale comme ay directeur école lañ ci dalal moom xam naa ne <laughs> ñu ñu développé ci point yooyu yaakaar dina am solo euh, semaine passée conseil interministériel. bu ma juumal euh, le premier ministre mi ngi doon insister ci règlement intérieur u école yi règlement intérieur u école yooyu noonu mu ngi ci doon wax bay fàttali wax bi nga xam ne waxoon na ko jamono yële muy lu jëm ci euh, xale yi nga xam ne am nañ droit muuru bu leen kenn buntu xataat ñu bàyyi leen ñu ñu ñu dund liñ bëgg a dund point boobu boo xoolee da ciy insister lu bëree bëri yow en tant que directeur école no nooy dundee loolu Euh, monsieur Traoré. merci Cheikh Moussa ci ci question bi di am contente lool pour répondre ci. Mm-hmm. ndax euh, éducation dafa nekk lu ñu soxal. Mm-hmm. te mu nekk loo xam ne c'est primordial. ñoŋal suñu éducation moo war a njëkk leneen mm-hmm. ndax éducation jeexitalam mooy am ci économie ci pauvreté ah jeexitalam mooy dem ba ci comportement nit ñi accident yu bëri yi ngay gis yëpp loolu yëpp. éducation moo ko mën a régler tey nag suñ le premier ministre defee conseil interministériel ci wàllum éducation jël ci lu ma trente mesures ba pare waxaale ci affaire réglement intérieur boobu doon discriminer certaines fii yi nga xam ne wala certaines dames yi nga xam ne dañ doon muur ñuy am ay problème di dugg ci yenn école loolu tamit day am solo trop ñu waxtaanee ko pour sénégalais yi xam dëgg-dëgg fan la toll et avancement yi fan la jëm docteur Bamba man bu ma xoolee conseil interministériel par rapport aux mesures yi nga xam ne le le gouvernement jël nañ ko sama xel day daal day dal lool lool lool lool lool ak romb dal mais kontaan leen ñaanal yàlla continuité parce que mesures yi ma gis yaakaar mun na am yaakaar mën na am sur tous les plans mënuñ wax lépp mais suñ ci jëlee quelque point day am solo mooy le premier ministre wax na ne ñu jël suñu éducation bi bàyyiwaat xel dëgg dëgg dëgg dëgg ñun suñu culture loolu dafa am solo bañ a raconter xale yi ay histoire yoo xam ne xamuñ sax des histoires étrangères mm-hmm. ñu ñëwaat ci histoire dëkk bi ñu xam seen dëkk bëgg seen dëkk ñu am benn citoyenneté bu dëgër loolu wax na ko te nee na day defaat refonte curriculaire yi te ñëppay jooy ne curricula Sénégal dafa am problème suñ système d'enseignement bi xale bi day jàng ba pare du mën dara loolu yëpp nee na dinañ ko def une refonte étudier waat ko defaat ko liggéeyaat ko ba mucc ayib ba nga xam ne xale sénégalais bu ñuy former tey fii dina mën a am aptitude liggéey dëkkam et am aptitude liggéey sur le plan international loolu dal na xel beneen mbir bi mooy mooy l'anglais nee na dina dugal anglais dans le système éducatif lu tax anglais bi am solo yaa ngi ne pays pétrolier nga si waaw te nga war a xaar façon doomu aadama mu ne bu ne di ñëw ci sa dëkk te sa doo waa dëkk bi mënuñu communiquer ak nit xam nañ bu baax français soriwul mu ne anglais boobu na ko préparer une nouvelle génération d'ici vingt ans Sénégal nekk un pays boo xam ne ñu fiy làkk anglais nañ bëri trop di mun a jëflante képp ku ñëw ci dëkk loolu ñu bañ maam ñu bañ a rek ci benn moyen de communication. exactement exactement sëñ Moussa bañ a yem ci français te loolu sax day tënk nit fekk ci français nga yem rek da tënk. da lay tënk tey mun nga amoon ay opportunité yu bëri sa benn langue bi rek tënk la tey su teelee préparé loolu mais lu ñuy wax du ñu koy wax dul félicité ko le premier ministre mesure ñuy jël am na solo baax na ba ñu guddal su ñëwee ci côté euh, mesure yu mu jël mu ne moom dafa sentir ne état bi état bu fi nekkoon dafa am faiblesse ci yenn réglement intérieur yi ñu doon jël le premier ministre. est revenu sur l'aspect du voile est revenu sur ça affaire discrimination yi mu wax nag lu am solo loo xam ne aussi ñun tamit déglu nañ ko ci di borom xel mu ne dafa am lu mu constaté ne li fi ne woon mooy état dafa amoon ay faiblesse par rapport aux écoles et par rapport aux certains instituts de formation te nag école yi ci territoire Sénégal lañ nekk y compris les écoles étrangères y compris les écoles bépp école bu nekk ci territoire Sénégal état war na am taxawaay boo xam ne da koy taxaw def ay règlement intérieur li muy nangu yow soo buggee jóge sa dëkk ñëw installé da nga war a dëppoo ak lu état bi décide loolu mooy taxawaay état beneen mbir bi mooy tey nga nekk jàngalekat hmm. nga ne xale bii kat su muuroo du fi dugg mais yow jàngale woo yow yaa ngi jàngal nit ki discrimination est-ce que ci éducation la bokk ngay discriminer nit. déedéet éducation ñun suñu rôle mooy danga war am tolérance accepter nit ki ci ni mel fekkee yow gis nit ki mais ah war na am ay jubbanti ci jikkoom wala yow lii doy la mais ci xam-xam nga ko war a convaincre mais doo jël ay mesures radicales voilà loolu c'est pas du tout normal doolu kenn ku nekk territoire sénégalais bi waroo ko accepter waroo ko nangu te gouvernement bi nag lancé boobu jël dama ciy kontaan nekkul ne. lépp lu luñ def dañ ci war a kontaan parce que tamit duñ doon mukk ay naafeq mais lii yoon suñ ko defee dañ leen koy wax te ñu ngi ci yoon bu baax territoire Sénégal daal ki fi nekk war nga am ay réglement intérieur yoo xam ne état bee la ko tag nga dëpp ci bépp école bu fi war a nekk. monsieur Traoré bu ma déggee maanaam euh, règlement intérieur yooyu nga xam ne moom ngay wax lu fi nekkoon la wala ndax lu bees lu fi état mu bees ko indi. état bi. bu fi ne woon dafa bàyyi woon école yi def seen règlement intérieur leen neex wax ji loolu la école bu ibbi jóge étrange ñëw yaay xool li ma neex li moo ma lii laa sentir lii laay def waaw lii laay jël lii du ma ko jël nga nekk ci territoire dëkk boo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ñoo xam ne way gëm lañ nga ne da doo tànn ñi nga xam ne dañoo muur loolu c'est pas du tout normal beneen mbir bi mooy y'a certaines personnes qui parlent de religion, c'est des écoles catholiques, tout ça. Mais moi, je ne crois pas à ça. Mm-hmm. Moi, je n'ai jamais vu Marie sans voile. Moi, je n'ai jamais vu Marie sans voile. Ça, c'est un point. Parce que buñ jaxasé buñ jaxasé wax yi jaxasé wuñ wax yi l'état rôle bu mu war a joué mooy ñëpp nekk ci jàmm te du am xaaj ak seen règlement intérieur bu premier ministre wax mooy ñëpp sentir ci seen bopp ñëpp gis ci seen bopp mooy xale bu muuroo bu muuruwul mën a am droit dem jàngi bu ñu forcer kenn waaw ku nekk da nga koy bàyyi ci lim gëm nga convaincre ko ci xam-xam indi ko ci ci teey bakkan ci paix ak stabilité voilà donc je pense que. est ce que nekkul boo gisee lu tax ñu ciy insisté gisoo ne maanaam en général bu concours général amee ñi ciy gën a xarañ en général ñi nga xamante ni dañuy muuroog yi mel noonu loolu moo tax mu gën a insister wala ndax dafa da ciy insister ngir ne kenn ku nekk ñu jox la sa àq. exactement waxu premier ministre yëpp dafa ne kenn ku nekk ñu jox la sa àq. wax ji ñu ko bu ñu ko yóbbu fen parce que am na xale yoo xam ne muuruñ te il bosse bien loolu yëpp ça dépend ci l'éducation ak encadrement la parce que man xale dama ne lu koy def excellence mooy l'encadrement de ses parents ak wastu ak bu seeni parents def pour xale bi réussir voilà mais nañ jox ñëpp seen àq loolu jàngat bi am na solo docteur euh, noo gisee kàddu premier ministre yi nga xamante ni yëkkati na ko ci conseil interministériel bi nga xam doon noo ko amal ci semaine bi ñu génn muy insister waat ci règlement intérieur yi nga xamante nii moo nekk ci école yi pour ñu appliquer ko maanaam euh, nga xam ne mi ngi mi ngi sax gën a insister ci xale yi nga xamante ni dañuy muuru mais aussi parfois ñu leen di buntu xatal ci yenn école yi. jërëjëf Cheikh Moussa vraiment di féliciter n'est-ce pas donc euh, monsieur Traoré Amadou n'est-ce pas donc ci analyse bi nga xam ne ni indi na ko par rapport ak mesures yi nga xam ne le premier ministre Ousmane Sonko en tout cas indi na ko n'est-ce pas donc ci réunion. Euh, de préparation donc de rentre bi mu doon def euh, le jeudi 19 euh, septembre bi passé mu wax ci n'est-ce pas donc ay mesures yu ama ama ama am solo vraiment donc ñu ngi ko ciy félicité te du ma ci revenir kon damay revenir rek ci yeneen mesures yoo xam ne n'est-ce pas donc donc loolu xam ndax boo xoolee monsieur Traoré moom dafa ñëw indi maanaam jéemul rek ci question voile effectivement dafa jël ay points yu am solo yoo xam ne éducation da koo soxla tout à fait mu développé ko justement bokk na ci mesures yooyu itamit ba tey mooy li nga xam ne ni mooy rentre bi nga xam ne c'est prévu le 7 octobre en tout cas pour les élèves pour les enseignants peut-être je pense que ñu ni li ñu war a njëkk def mooy école yi nga xam ne xam ñun ñëpp xam nañ ci nawet nawet bu jotee école yi n'est-ce nawet bi mën nañu wax daf koy xaw a yàq daf koy endommager moo xam ñax yi si nekk ak ndox yi ak sax ñenn ñi nga xam ne seen kër yi ndox mi da koo nangu dañuy ñëw di dëkk ci école bi mu ne li ñu war a njëkk def mooy réhabiliter école yi mooy setal leen réhabilité leen pour que élèves yi ak professeurs yi buñ fiy ñëw ñu nekk n'est-ce pas donc dans un cadre boo xam ne n'est-ce pas donc dinañ ci loolu bokk na mu nekk ci ci mesure bu am solo ñaareelu mesure yi mooy li nga xam ne ni mooy abri provisoire xam nga ñun ñëpp xam nañ ni abri provisoire en tout cas l'ancien directeur de la communication et de la formation donc du ministère de l'éducation nationale wane woon ni Sénégal de 2012 à 2023 nous sommes passés de mille à 5000 abris provisoires léegi nag le premier ministre Ousmane Sonko nee na bokk na ci mesures yi mu bëgg def mooy abri provisoire yëpp dañ koy éradiquer te loolu mu ngi ci woo le secteur privé man passage boobu moo ma ci gën a neex ndax man dama seetlu ne duma ma ni les les pays développés ah en tout cas certains pays yi nga xam ni ils sont même en voie de développement mais écoutez des fois ils appel n'est-ce pas donc Euh, au secteur privé à des yi nga xam ne ils travaillent avec l'État maanaam ñoo xam ni ñoom euh, léeg-léeg dañuy liggéey ak état état di leen di jox marché n'est-ce pas donc mu am donc lu lu am solo loo xam ne léeg-léeg lu si bari dañ si bàyyi xel muy lan mooy la responsabilité sociétale d'entreprise mm-hmm. mu ngi ciy wole secteur privé mu ni képp koo xam ne am nga localité moo xam immeuble nga moo xam kër la moo xam lu ma mën doon ñëwal ñu liggéey ñu xool naka la ñuy éradiquer n'est-ce pas donc ces abris provisoires mu nekk vraiment aussi lu am solo bokk na itam jusqu'à présent itamit ci mesures mooy journée de set setal dans les écoles xam nga le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu ñëwee dafa instauré ni chaque samedi du du chaque premier samedi du mois dañuy def un set setal national léegi le premier ministre Ousmane Sonko mu ñëw feddali ko ñu ni léegi ci biir école yi itamit mën na am sax dañ ko si continuer wala sax ñoom ñu jël seen jour boo xam ne ne en tout cas chaque mois une journée de set setal mensuelle boo xam ne dañ koy organiser te loolu ñun en tout cas man personnellement je me rappelle bi may nekk élémentaire ñun suñuy directeurs yi ak suñuy maîtres yi dañ daan organiser ay journée de set setal ñuy setal écoles yi toilettes yi classes yi te loolu dañ si doon gis suñuy directeur suñuy maîtres mu nekk vraiment ay images yoo xam ne ce sont des images de te loolu jàpp naa ne yu mel noonu dañ ko war a dekkaliwaat ndax ay c'est c'est c'est vraiment des choses yi nga xam ne ce sont des choses patriotiques loolu vraiment itam ñu si saluer n'est-ce pas donc le premier ministre waaye beneen mesure bi nga xam ne ni jël na ko muy l'uniforme des établissements foofu nag si la ñëwee indiwaat la question n'est-ce pas donc du voile bi nga xam ne moom la soulevé woon nest pas donc au concours général n'est-ce pas donc euh, bi nga xam ne ni moom la ñu organisé woon ci léegi nag dootuñu nangooti n'est-ce pas donc que les écoles ne respectent pas le règlement intérieur parce que gis nga la question n'est-ce pas donc de l'éducation que ce soit du voile ou même pas de ne pas voile en tout cas la question du culte c'est réglé par la constitution sénégalaise c'est-à-dire constitution moo permettre képp koo xam ne ni ci dëkk bi nga moo xam da ngay jàng moo xam fan foo bokk ban appartenance religieuse nga am moo xam way ngëm nga moo xam doo way nga xam ne en rapport avec l' nationale dafa war a respecter sa gëm-gëm mhm. léegi nag ñun li ñu gis nag nekk ku respecter gëm-gëm. est ce que si question uniforme bi ngay wax noonu est ce que du pousser yenn écoles yi euh, ñu changer seen couleur kii ndax boo xoolee am na yenn écoles yoo xam ne seen couleur école maanaam uniforme yi boo xoolee exa maanaam euh, euh, naka laati seen uniforme seen uniforme yi boo xoolee rek automatiquement da ngay xam ne lii nii maanaam couleur maanaam couleur bi waaw da même bu dul couleur diine sax mën na nekk couleur parti hmm. walla yu mel noonu ci boo ko jëlee ci côté politique. effectivement bon peut-être xëy loolu sax peut-être bon en tout cas dañuy jàpp ni peut-être en tout cas man personnel peut-être mën naa jàpp ni jugement de valeur parce que en tout cas il n'y a couleur boo xam ne ni moom la wax ni couleur bi moom mooy couleur parti sangam wala couleur parti sangam. Ah, bon demee ci école yi de. waaw effectivement bon mën na nekk. comme mën naa ko par exemple da ah d' léegi <laughs> léegi xam nga boo gisee boo gisee couleur boobu noonu automatiquement dina am sa partie bu sa dem. mais d' accord léegi mais su fekkente ni ñoom ah, couleur marron beige dañ ko yàq adopté Moussa ah du ñu ñëw wax ni kat couleur bi ni xëy na mooy couleur parti sanga parce que bu ñu xam bu fàtte ni parti marron beige couleur marron boobu quand même nekkul parti boo xam ne lu parti bu yàgg la parti bu récent léegi su fekkente ni gis nañ peut être en tout cas école boo xam ne ñoom seen couleur uniforme marron beige la bon on va pas dire que quand bon n'empêche néanmoins moom li mu insiste sax nekkul sax par rapport aux aux mais par rapport n'est-ce pas donc à l'uniforme à l'uniformisation n'est-ce pas donc moo xam képp ki nga xam ne ni euh, école bi nga xam ne ni comme ñu bu ñëwee ci question du voile maa ngi koy préciser léegi la constitution les arrêtés les règlements intérieurs les arrêtés ministériels ñëpp ñoo. ñoŋal li nga xam ne ni mooy gëm-gëmu ki nga xam ne ni moom mooy jàngale ñu respecté ko gëm-gëm koo xam ne moom dafa jàpp ne moom religion am da ko permettre mu muur kooku dañ ko koy respecté koo xam ne ni religion am daf ko permettre nee na moo indi une croix kooku dañ ko koy respecté koo xam ne ni religion en tout cas l' essentiel mooy que na bañ a impacté pas donc si jàng bi. maanaam su ma la déggee daal comme par exemple ki nga xam ne dafa bëgg sol jupe boo xam ne jot na. ñu bañ koo wax ne ko fii la war a yem ak di ko conditionné ak yu mel noonu. effectivement mu ngi noonu et puis sax euh, ñun dañoo jàpp ne xam nga école itamit sa première vocation quand mooy du jàngal kese ma la léegi yar nag dafa bokk n'est-ce ay valeurs ñun nag Sénégal dañoo am ay valeurs wax dëgg yàlla ay valeurs xam nga ñun quand ñun xamuñu xale bu ndaw boo xam ne ni da ngay ñëw sol as cipp su ndaw wala ab loo xam ne ni dafay feeñal sa yaram ñun suñuy valeur ak suñuy culture ak suñuy si boppam moo nanguwul lool ba tax na. Euh, néanmoins du ñu empêcher kenn koo xam ne ni n'est-ce pas donc moom am na un choix par rapport n'est-ce pas donc à sa tenue mais li ñu li ñu li li li gën a yitteel nest pas donc le premier ministre mooy que nañu respecter nest pas donc kenn ku si nekk li nga xam ne ni moom la constitution tëral te constitution moo tëral ni kenn ku si nekk nañ ko respecter en tout cas gëm-gëm koo xam ne moom elle a fait un choix pour bañ a mais ko kenn du ko forcer ne que par muuru da ngay force koo xam ne ni nag elle a fait son choix mu ne moom dafay muur boppam dafay téye loxoom du jox loxoom kooku tamit nañ ko nangul ni xam ne peut-être religion n'est-ce pas donc moo ko permettre mu def loolu ñu am une certaine tolérance par rapport à ça. Euh, docteur Bamba. di mhm. rafetlu trop sa intervention. bi bi ci yokk rek mooy mbir moomu mbir mu garaaw la. tout su ko gouvernement bi réglé wul. tout à fait. da constitution bi dafa ne ñëpp a am et le droit à l'éducation est fondamental. muy benn ñaar ay léegi eh, Cheikh Moussa tey lu ñuy wax ñoom mooy léegi ki muuruwul moo am droit nekk fu ko neex ki muuru moom dafa am école yoo xam ne mën a dem ak yu mënta yu mënta dem daa am fu mu yem léegi premier ministre ne loolu du am képp am na Sénégalais comprendre loolu ñëpp am droit dem fu leen ne foo mënti bokk ak noo mënti. loo mënti gëm noo mënti gëm. problème. effectivement bu ñu ko yóbbu feneen. tout à fait waaw foofu loolu rek. problème c'est simple rek am na solo. ce n'est pas une question religieuse. encore une fois. exactement merci beaucoup question nest pas donc de loi ce n'est pas une question religieuse c'est une question n'est-ce pas donc de constitution qui a été garantie nest pas donc par la constitution constitution moo garantie ne koo xam ne way jàng bëgg jàng nga yow def nga sa choix par rapport à ta religion mm-hmm. na la ko école bi respecté macha allah c'est bon macha allah jàngat yi am na solo question bi bu ma sañoon sax ñu gën ci yaatal ndax ni ngeen ko jàngatee ne vraiment man xaaruma ko maa ngi doon jàpp ne peut-être di ñëw rek yem ci question voile beeg yu mel noonu ak règlement intérieur yi mais da ngeen ci yokk yeneen point yoo xamante maam lu soxal askan wi la ñu xam ko loolu Euh, directement noonu la ñuy demee ci nu beneen point incha allah boo xam ne ci wàllu euh, ci wàllu politique la maanaam euh, semaine ci ci biir semaine bi gis ngeen ne maanaam opposition bi ñu ngi fexe di jéem a xool naka la ñu booloowee doon benn àndandoo ci élection yi nga xam ne moom lañ jëm législative yi ci biir loolu nag ñu gis maanaam leader yu baree bari dajaloo nañ daa di daa di tuddee seen bopp atel atel na xaw ma ndax polof la <laughs> xawma ma ah docteur <laughs> atel eh, monsieur Traoré nu gisee booloo bi nga xam ne eh, opposition yi boolo booloo nañ ko ak maanaam lan lañ mën a xaar ci ñoom ci législative yi nga xamante ni moom lañ jëm. waa di nuyu waa les politique ñoom ñëpp den jox seen respect ak seen considération parce que ci ëpp ay kilifa lañ ay ay wayjur lañ waaye ñun na dañuy analyser aussi. ci ci ci gis-gis bu am te manque ñu respect kenn ñëpp lañ jox seen cër waaye Cheikh Moussa euh, ci sama analyse ak ci échangement am ak sénégalais yi wax fa dëgg yàlla dafa am question bu ñuy laaj dañ ne dañoo sentir cette opposition dafa mel ne dañoo nekk nguur goo xam ne daf fi def dix ans ci lu bon ngay xeex moom mel ne kuy xeexal ku def fukki at ci sonal sénégalais. te fekk 4 mois et 5 rek la fi defagum. 4 mois et 5 mois et 6 mois. looloo jaaxal sénégalais Cheikh Moussa waaw loolu am solo lu lu jar a bàyyi xel mooy xeex bi ak en bi ak façon taxawaay day mel ne yow ngay xeex ak koo xam ne dafa sonal sénégalais la jël sénégalais ay ati ati ati ati at mel na ñoom defaguñ rupture. non leneen lu bees ñëw na. mel ngir yàq ak yu mel noonu exactement. Mhm. ci lu yàggul lool mhm. dañoo fal nguur gu bees goo xam ne juróom benn weer la fi def ñu fal leen ci cinquante quatre pour cent loolu am solo la au premier tour. que loolu mos na am. je pense benn la Macky Macky Sall fi jotoon am tout ça. effectivement non mais non Macky Sall deuxième tour la deuxième tour te loolu boobu te loolu. loolu mu ngi woon ci nguur. bu muy jël bu muy am premier tour boobu ci nguur la nekk. ci nguur la nekk waaw ci nguur la nekk. bu ñu fàtte loolu je je m'adresse aux opposants ñuy sumay papa di sumay nijaay bi ñu ñu ma jox cër ñaareel mooy sénégalais yi fu mu toll nii soxlawuñ loolu parce que lu am solo nag dafa am tubaab dafa ne lépp loo xam ne dafa commencé ak foi dafay terminer toujours ci miracle te man dama gëm loolu diine nag innamal amalu bi niya waaw muy Pastef seen intention dafa nekk intention bu sincère moo tax tey yàlla terminer ko nii te kenn gëmul woon ne dina terminer nii lu am solo la te sénégalais yi nag jox leen seen xol pour l'instant di leen déglu pour xool nan la ñuy doxalee moo tax opposant yi wax fa dëgg yàlla sa question dama ci revenir aw ma yaakaar ci seen seen seen seen seen voie bi ñu jël aw ma ci yaakaar je vous parle en toute sincérité atel étudier naa ko xool naa seeni xeex lu ñu wax la ñuy xeex ñu ne choix date bi concertation amul ci choix date moo waral atel alliance pour la transparence voilà des élections ma xool ma ne waa lii lan moo ko waral atel bi ñu ne non choix date concertation dafa war am tout ça mais ma ne c'est insensé parce que bu ñu fàtte ne bu ñu ñoom dafa am leen lu doy waar lu ñu wax lu lu assemblée def président bi dafa ñëw jaar ak ñoom ci yoon ci njëkk fekk fi ay institutions yu mu fi fekkoon muy HTCC euh, ak euh, CSE fekk fi président de l' assemblée nationale euh, Mame Diop jaar ak ñoom ci teggin ñëpp gis ko mu invité fu mu leen war a invité levée des couleurs su amee ñu mu ñëw taxaw lépp mu jaar ci ñoom yoon li mu bëgg a def mu jiital demande au niveau du conseil constitutionnel par rapport à l' assemblée nationale def ay écrit au niveau du du président de l' assemblée nationale mais bu ñu fàttee li indi dissoudre assemblée nationale mooy assemblée nationale ñoo taxaw ñu ne dañuy daaneel gouvernement bi. motion de censure. loolu ñëpp teg nañ jékki-jékki rek indi loolu. ki dafa ñëw indi njekk ñoom ñu ne ñëw dañuy ñëw bloqué liggéeyam. bëgg këpp suuf ci liggéey bi bëgg daane gouvernement bi ci six man je pense ku bëgg Sénégal du doxalee noonu. fi may jeexalee balaa may jox docteur Bamba mooy man cocktail bi cocktail bi ma gis. Hmm. waaw cocktail bi moo. mais cocktail bi est-ce que ñoom pour sénégalais yi naan ko dina jafe. mais loolu est-ce que ñoom tey bu ñu demoon ba a def list maanaam est-ce que foofu duñu am problème. waaw moo tax ndax cocktail boobu. Ah. yéeme na Cheikh Cheikh Moussa. parce que fi ma gisee euh, APR toog muy Abdou Mbow. waaw man man justement boobu laay doog a xam ne Abdou Mbow mooy président APR Abdou Mbow moo moo fa représenté mën nañu wax moom moo jiite affaire yi ndax boo gisee Khalifa Sall toog ah. ñoom ñeneen ñoom Anta Babacar toog Abdou Mbow toog ça veut dire Cheikh Moussa Abdou Mbow toog mhm. euh, Pape Djibril toog Bougane toog Anta Babacar Ngom toog euh, Khalifa Sall ay Thierno cocktail boobu yéeneen buñ fàtte six mois rek lañ jógee de mais nit ñi mënuñ fàtte gaaw yooyu tey li xañoon tey ay ñoom xalifa Sall yëpp doon doon doon ay député à l'Assemblée nationale liste ñoom Ousmane Sonko mais ñoom Abdou Mbow la woon mais yan jafe ñaata jafe-jafe lañ teg nit ci affaire liste ci liste boobu tey yéen ngeen ne da ngeen di àndaat pour transparence des élections transparence des élections tam xam nga fu tàmbalee waaye nga fal ministre de l'intérieur boo xam ne bokku ci benn parti loolu lay jub nga fal ministre de la justice boo xam ne bokkul ci benn parti lu am solo laay wax. forces armées aussi. forces armées. yow ban ban moo fi moo ngay ngay kaasati vraiment man sama gis-gis mooy suñu nijaay yi suñu papa yi wax fa dëgg yàlla nañ changer démarche ñu def démarche bu ma leen ñaan mooy ñu démarche boo xam ne dañuy jéem a fexe liñ liñ yokkee doole état bi parce que nag ci sama gis-gis ci sama si sama sama sama sama vision. nguur gi mu ngi fi ci kanama kanama kanama kanam paa yi ñu teg départ bi ñu am parce que olof dafa ne cin su naree neex su baxee su baxee xeeñ donc nag te Sénégal ñu ñëpp a ko bokk en bi jaratu ko euh, jëf yi jaratu ko te opposé wu di opposé wu te amul benn sens amul benn njëriñ parce que tamit sénégalais yi dañoo raw homme politique yi lu bëree bëri bëri kii laataa may jox Bamba sax boo xoolee ci côté boobu maanaam ñoom ñoo ngi ñoo ngi xeex ci wàllu date beeg yu mel noonu mais boo xoolee ci wàllu droit maanaam amuñu lenn loo xam ne mën nañ ko reprocher président de la république ci jàpp bi mu jàpp date beeg yu mel noonu. exactement Cheikh Moussa loolu laa tàmbali ah, avant mu koy jàpp sax maanaam moom da ci concerté conseil constitutionnel même ba ci président assemblée nationale bi ak premier ministre yëpp maanaam fépp fu mu war a jaar rek jaar na ko te aussi ñu ne ko am na droit maanaam jàpp datu élection six mois de de soixante jours avant wala quatre vingt douze jours. maximum. dama ne le président de la république jalgatiwul benn yoon. Mhm. kenn mënu ko topp ne dafa jalgati yoon. léegi kon ñoom maa ngi ñëw te xam nga manque d'honnêteté. Mhm. non y a un manque d'honnêteté parce que bu leen fàtte docteur Bamba. Mhm. Macky Sall bëggoon na fi dissoudre assemblée bi da ngeen fàttali <laughs> eh, dugaloon na projet pour dissoudre assemblée bi. Ah, waaw nga dëgg saa bu ko neexee. <laughs> Eh? fàttali ko waaw. muy benn. ñaar lu tax Macky Sall dina leen oto ba tey. mais mais pour préciser loolu bi mu ko dugalee même député ñoom ñoo bañoon. ñoo bañ waaw ah, ndax loolu seen arrangement la. waaw uh-huh. maa maa ngi ci léegi non dafa am manque d'honnêteté bu bu doy waar tey même les institutions financières nanguñ sox jox prêt aux député ndax sentir nañ ne assemblée bi nekk assemblée buy dem te tamit ay na yeween assemblée bu sénégalais soxla bu sénégalais yi bëgg mooy assemblée de qualité. assemblée boo xam ne ñu am xam-xam a sa nekk ñu mën a défendre réew mi la ñu xam jàmbatu réew mi ñu xam les enjeux internationaux loolu la loolu la loolu la Sénégal soxla fu mu en tout cas pour conclure maa la ko wax fii atel bi du dem fen ah bon yéeneewu ma neen ko de. ah le 17 soreetul ma leen ko de. opposition dafay am sens. Mm-hmm. non sincèrement bul opposé wu pour opposé wu kese. da ngay opposé wu ak hmm. objectivité. Hmm, hmm. Euh, man moom personnellement man damaa jàpp ne sax maanaam bu ñu demee ba ci ba ci ba ci investir liste yi man jàpp naa ne foofu moom même bu ñu àndee ba foofu yaakaar naa dinañ tàqali ko ndax kenn ku nekk dinga bëgg a nekk ci position boo xamante ni maanaam. même bu fekkee dañoo am plus fort reste wala ñu am ay cinq yooyu noonu nga nga bokk ci. cocktail bi de suñ ko bëggee naan daal loolu moom bu ci yeggee pour sénégalais yi naan cocktail boobu. Ah, dina kéemaay merci beaucoup. Euh, monsieur Traoré xam naa noonu rek ci laay joxe kàddu gi docteur Bamba docteur Bamba noo gisee cocktail bi <laughs> monsieur Traoré wax loolu moom yaakaar naa c'est facile à boire ah. bon effectivement comme ni ko <laughs> Traoré waxee <laughs> dafa nekk cocktail boo xam ne. Hmm. en tout cas dina naqari naan trop pour que en tout cas dina naqari pour que sénégalais nest pas donc mën ko naan. Hmm. ndax lan ndax très simple comme ni ko waxee en ñi nga xam ne ni. ñoom ñoo porté n'est-ce pas donc c'est cest xaw ma nu ma ko mën a tuddee xaw ma un mouvement en tout cas xaw ma lu mu ci mën a doon muy Athènes pour raison n'est-ce pas donc yi mu wax écoutez xam nga li ñu war a wax mooy que ne bépp état dafa soxla n'est-ce pas donc une opposition boo xam ne moom moo koy permettre n'est-ce pas donc mu xam ne ah les gens sont sous ses loolu moo koy permettre mu mën a liggéey moo koy permettre mu mën a xam ne en tout cas sénégalais yi joxuñ ko n'est-ce pas donc leur destinée rek pour que ñu def n'est-ce pas donc leen neex mais nag wax dëgg yàlla boo waxalee yàlla da ngay xam ne vraiment ce régime n'a pas encore n'est-ce pas donc d'opposant est-ce bokk ay principe sax mais justement loolu la ce sont des gens yo cest dire man bi ma gisee l'autre jour seen réunion bi mu gis Khalifa Sall euh, Abdou Mbow lu hmm. mu tuddee ci euh, Anta Babacar Ngom Thierno Bocoum euh, Bougane Bougane hmm. man bi ma leen gisee ma ne mais attends man la première question que je me suis mooy dama ne mais écoutez qui sont ces gens c'est-à-dire Bougane mooy kan ab ah, euh, Khalifa Sall mooy kan ñoom ñi nga xam ne aujourd'hui démb. Ah, da doon mottali yéene moom mais lan lañ doon wax. avec Ousmane Sonko avec le président Ousmane Sonko ñooñu noonu. cest dire quand je dis ñii ñooy ñan. c'est-à-dire man c'est-à-dire c'est retournement de situation man si ñoom man moo ma jaaxal bon bref li ma wax léegi nii on n'a pas encore une opposition et puis le Sénégal. régime bi fi mu nekk nii c'est-à-dire amagul une opposition c'est-à-dire le régime n'a pas besoin d'opposition il faut que ce régime vraiment puisse mu mën a sax commencer doxal son premier budget pour que ñu mën a commencer wax une certaine opposition mais wax dëgg yàlla li fi nekk Cheikh Moussa mooy ce sont des gens yi nga xam ne ni ils ont ce qu'on appelle une certaine haine et de la jalousie Euh, kon da ngay rejoindre li monsieur Traoré wax maanaam opposition boo xam ne ñu ngi opposé mel ni régime dañ fay def plus de dix ans. je vais aller plus loin que monsieur Traoré. ce sont des gens yi nga xam ne dañoo am une haine envers la personne de Ousmane Sonko li mooy réalité bi Moussa. ñi ñi ma gis ni c'est-à-dire ñoom li leen metti mooy pourquoi Ousmane Sonko de 2014 qui qui qui a créé un parti en 2014 en 2024 mu fal un président. lii mooy seen problème en réalité. man man li ma gën a jaaxal nag ñoom ci ni ñuy opposé woo euh, au lieu maanaam ñu tudd le président de la république mais premier ministre rek la ñuy wax premier ministre maanaam loolu jaaxal na ma quoi mais moo leen jaaxal xam nga sax même bu fekkee ne sax dinañ tudd le premier ministre wala le président de la république c'est-à-dire mais ñu opposé wu de manière objective comme sax des faits des idées cest dire des contre ñu joxe argument léegi loolu nag il faut ñu may ma def un petit rappel sur la personne de Ousmane Sonko. gis nga Ousmane bi mu ñëwee dugg ci politique il a révolutionné n'est-ce pas donc la manière donc de faire de la politique au Sénégal bi mu ñëwee lan la njëkk def il a écrit un livre livre bi livre bi mu njëkk bi nu mu tudd pétrole et gaz non non non solution pétrole et euh, au Sénégal du moins mmh, mmh, mmh. chronique d'une spoliation mais mu nekk livre boo xam ne ni mais c'est c'est extra cest dire man bi ma liiree livre bi man dam c'est-à-dire man si la gën a conscient que ni sax ndeke le Sénégal regorge d'énormes potentialités en matière n'est-ce pas donc de ressources minières mais mu def loolu le pouvoir qui était en place le xam ne mais attends ñun kan ndeke ñun ñu ngi soog a am une opposition bi tax ñuy wax mais pareegu si pareegul ci livre boobu mu jënd indiwaat beneen livre propose ñu ko muy solution pour un nouveau Sénégal ba noppi di woo cadre pour ñëw ci débat débat public boo xam ne débat contradictoire lay doon c'est-à-dire hmm. Ousmane Sonko nous a proposé les solution pour sortir le Sénégal des ténèbres léegi nag bi fi pouvoir boobu en place bi xoolee gis mbir mi ñu ne ah ñun kat yi amatuñu lay ci moom ndax ñoom après si lañ commencé n'est-ce donc dem di dénigrer def li ñuy wax nest donc di chercher ay mbóot ci Ousmane Sonko léegi lu ñu njëkk def lu ñu ko mën a taqal ñu dem xool fa mu doon liggéeyee aux impôts et domaines nga xam ne moom ci boppam taxawal na wax ni liggéey na fukki at juróom mais kenn mënu koo génneel fukki dërëm boo xam ne ni def na ko naka su dul noonu ñu seet seet seet seet jéem a créé xool effectivement Ousmane Sonko a eu raison léegi fan lañ mujjee comme la ñu defoon ness ce pas donc seen opposant yëpp à savoir Karim Wade ak Khalifa Sall bi nga xam ne tey nee na moo leen rejoindre ñu utiliser la justice léegi nag comme ñoom Khalifa Sall ak Karim Wade comme ñoom peut-être ils ont eu à gérer Karim Wade il a été ministre du ciel et de la terre comme ni ñu koy waxee aussi il a été maire de Dakar comme géré na maire de la mairie de Dakar a un budget de combien de milliards donc du nekk léegi nag si lañ ko taqalee caisse d'avance léegi nag pour le cas de Ousmane Sonko amuñu luñ ko mën a taqal léegi nag il va falloir ñu cherche ñu jëm créer utiliser justice. loolu moo fi indi woon événement ay. Euh, euh, mars deux mille vingt un effectivement juin deux mille vingt ba juin deux mille vingt trois effectivement. Hmm. léegi nag bi Ousmane ko gisee ni nag écoutez moom il il est en face des gens yi nga xam ne sont des gens irresponsables des gens yi nga xam ne du ñu xalaat maanaam avenir u Sénégal yitteelu leen sont des gens yi nga xam ne leur propre intérêt moo leen yitteel moo xam ne ñii dañ ko bëgg liquider. politiquement en utilisant la justice si la Ousmane Sonko teg sa fame fameuse résistance xam nga ñu bari dañ naan Ousmane Sonko gatsa gatsa résistance non Ousmane Sonko il faut ñu delloo à ses débuts mais à ses Sonko ku daan dégg waxam sax da naan mais kii politiquement sax dafa sedd daa daa xaw a mel ni man dafa sedd ci ci ay wax mais nag si lañ soog a xam ne nag ndeke nag mais attends no sommes en face d'une personne non seulement waaw dafa sedd rek mais mais sommes en face <laughs> d'une personne bi nga xam ne il maîtrise n'est-ce pas donc les affaires publiques il maîtrise en tout cas les dossiers n'est-ce pas donc de l'État mais aussi une personne qui est courageuse mu opposé wu n'est-ce pas donc mu teg une résistance peuple bi jàppale ko si ba tey li yàlla dogal léegi nag man j'invite cette cette opposition ñu def ne Ousmane Sonko wax man loolu laa indil ñu loo xam ne ni wax dëgg yàlla nit ñi nit ñi dinañ ko mën a gis mm. mais regarde ces gens là c'est-à-dire vraiment je ne voulais vraiment pas revenir sur des cas yu si mel ni ay Bougane ay Pape Djibril Fall ay ñeneen ak ñeneen mais Bougane regardez la depuis un certain moment il ne sort que des insanités c'est-à-dire ay wax yu salté dong lay génn pour mais sa dernière conférence de presse man li ma jàng ci ci génn Bougane bi quelqu'un bi nga xam ne nii il veut montrer aux gens Bougane il faut ñu xam ni moom it ci reddition des comptes yi ni moom daf ci am wàll cest gis nga Bougane mm-hmm. il pense que non les les gens dupes non Bougane il voulait se préparer pour utiliser peut-être xëy na liñ ko nar a woo te ni moom kat c'est un opposant boo xam ne dañ ko tëj man d'accord ma sax si li ñu di wax naan non buñ ko tëj ak buñ ko naan cest dire Bougane si la su fekkente ni dafa am lu mu laale ci les deniers publics mais boo ko yoon waree woo na ko woo bu fekkente ne am na si responsabilité ko yoon def liggéey. en tout cas état nee na moom bu fekkente ne euh, maanaam képp ku ñuy woo moom maanaam dossier bu leer naññ lañ lay tegal. du ñu montal kenn dossier léegi nag moom nag fi mu ne dafa bëgg teel a moom cest di dafa bëgg njëkkantu nit ñi. mais c'est-à-dire il faut que ces gens-là comprennent que ni. nit ñi yeewu nañ nga daaneel ndax. leen raw ci leur leur façon de faire la politique gis nga ñii ni nit ñi raw nañ leen bu yàgg ci leur façon de faire la politique ñoom ils sont vraiment en arrière par rapport n'est-ce pas donc à la population donc sénégalaise kon nag ñu ngi leen di invité vraiment ñu def ñu wax leen ni leen un État a toujours besoin d'une opposition mais que mu nekk une opposition vraiment. saine une opposition d'idées une opposition de contre-proposition mais tout à l'heure maa ngi fi wax ni mesures yi nga xam ne le premier ministre jël na ko mais nañ xool mesures yi nga wax ak yi ma wax mu nekk plus de mu nekk trente mesures yoo xam ne wax dëgg yàlla képp ko gis da koy rafetlu n'est-ce pas nag li ñuy xaar ci opposition mooy ñoom ñu ñëw def une contre-proposition mais opposition boo xam ne kii kat moo fi defoon nangam mais ba di def des attaques personnelles mais da ngay comprendre xam ne des gens nga ils ont une certaine haine envers les personnes ils sont macha allah merci beaucoup docteur Bamba xam naa réduction euh, des comptes bi nga wax sànq moo ñu permettre ñu dem ci point bi ci topp euh, monsieur Traoré dañoo seetlu ne jamono ji maanaam ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci ancien ci ci ancien euh, kii bi régime bi ñu ci bëri parfois ñu dem ba aéroport ñu téye leen ñenn ñu ñu commencé di leen arrestation yi daal commencé bi ci gën a ràññeeku nag mooy ki ki nga xam ne moom la ñuy tuddee sniper waaw ñu arrêté ko aussi it am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di convoqué noo gisee arrestation yi aussi euh, sniper bi nga xam ne moom ci boppam arrêté nañ ko ak arrestation moom jërëjëf Cheikh Moussa di kontaan trop ci question boobu parce que aussi dafay am solo dañoo nekk dëkk boo xam ne aussi nit ñi dañuy xaw a gaaw fàtte tuuti mm-hmm. moo tax balaa di répondre il faut ñu delluwaat ci ginnaaw parce que li fàttali parce li am rek dafa am ko waral tey suñ soo jëkkee jukki ñu na jàpp nañ Jérôme Bandiaky dafa am lu ko waral nit ñi tëbul tëbuñ tëb rek ñëw jàpp ko Sénégal dafa jànkonteel at yi weesu deux mille vingt et deux mille vingt deux trois ba deux mille vingt quatre hmm. ay jafe-jafe yu méttee métti ay nit dee kenn du ko wéet ay nit dee ñi seen loxo yi dagg ñi ñàkk seen liggéey ñii disparaître hmm. ñii di di di déplacé wu ñu tiire leen ay balofetal fetal ñëpp gis ko ñi daw dugg ci hôtel yi loolu yëpp daf fi xew ak yeneen yeneen yoo xam suñ nekkee di ko sit fii ci ñetti at yi wees wala ñetti at yi duñ fi jóge donc loolu nag su amee ba nguur change beneen nguur ñëw d'autres dirigeants ñëw te ñu gis ne loolu yooyu bu muy am jàppuñ kenn am les responsables ne sont toujours pas encore exactement nguur gu bees ñëw. il ñu fàttalu parce que Sénégalais ñoo ñu seetaan. Mm-hmm. ñu jékki-jékki tëbuñ tëb rek nguur gi bu mu ñëwee di jàpp ay nit nguur gi dafa ñëw am ñu mu raxas commandement gendarmerie ñu raxas. police sûreté urbaine ñu raxas. dig ñu raxas. Mm-hmm. ñu raxasee ba pare parce que foog ñu raxas sénégalais yéen ñii seetaan foog ñu raxas. parce que buñ fi ñooñu fi nekkoon njiiti. foog ñu bale foog ñu bale. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que ñooñu ñooñu nekkoon fi. Ah. defuñu woon dara bu impu impunité. defuñu woon dara. Mm. léegi nag foog ñu indi ñi nga xam ne dañ def ay recherche ay enquête lii nii lan moo ko waraloon. Mm. parce que loolu su amul rek loolu su amul rek mooy xale yi ndaw yi ndaw yi dañ leen di wan ne leen mun ngeen def lu leen neex te dara du leen ci fekk après. Mm. subhanallah loolu loolu day yàq dëkk moo tax lii foog mu am. li fi xewoon lan moo am ñun nag waxuñ kii a def waxuñ kee moo def docteur Bamba hmm. kii def ñoom xam nañ ko justice xam na ko te moom mooy joxe tout ñun analyse la am bu ñuy def léegi nag pourquoi ñu jàpp Jérôme Brancagne hmm, quoi lenn lu ci njëkk mooy dafa am ku ñuy wax Dame Mbodj mu amoon benn jour mu def émission hmm. def émission di ñibbi këram. Mhm. ci benn télé ñëpp seetaanoon ko sax muy ñibbi këram ci yoonu ñibbi bi ñu jam ko ay balu fetal. tout ci otoom benn Ford. je mhm. l'ai suivi. tout jam ko ñëpp gis balu fetal yi fël ban ba nga xam ne bakkanam xajoon na ci. mu daw dugg ci benn hôtel bu ñuy wax hôtel Radisson. mu daw dugg ci biir bu mu duggee ci biir pour rëcc pour làqu ndax tiit na mhm. ñooñu doon tiire topp ko. te ñëpp xam nañu ñun suñu école yi ndaw yi sax soo fa demee di nga di nga am ay vidéo de surveillance. tout bi amoon na vidéo de surveillance jël kanami nit ñi duggoon topp ko. effectivement xam nga loolu dafa doy waar. trop loolu dafa yow di topp di tiire nit ba topp ko. Mm-hmm. subhanallah ba ci bu dugg fenn daw nga dugg topp ko. Mm-hmm. vidéo yi jël ko fekk dàmbu amoon na fu ñu ko làq. bu mbir yi xëy suba teel ci la def annonce. tout à benn ñu ne vidéo yi dañ ci xàmmee kanam. mais loolu mais loolu yomboon na yomboon na pour ñu mën a jàpp ñi nga xam ne ñoo def def loolu. moo tax ma moo tax ma ci raxas bi. am na ñu fi nekk moo tax raxas bi am solo. Mm-hmm. Mm-hmm. ñeneen ñu bees a ñëw ñiy def enquête yi ay yeneen nit la loolu am solo la parce que état bi foofu la njëkkee ñaareel bi lu tax aussi Jérôme Bandiaky dañ ko gis mu nekk ci marron bi exactement mooy ñi nga xam ne ay borom doole lañ ñooy lijjanti affaire yi borom kàttan ñooy ànd ak le président de la république. dóor rey damm tout mais loolu tamit état dafa war a fexe ba yooyu jóg fi maanaam Cheikh Bamba. Mhm. dafa am ku war a gérer sécurité. muy police gendarmerie amatu waratul am ay milice ci dëkk. parce que loolu ku nekk mën na xëy na Cheikh mën na jékki-jékki am milisam ay borom kattan jékki-jékki mën a attaque ku leen yooyu état bi aussi je les appelle sur ça. ça va de la sécurité seen responsabilité la Jérôme Bandiaky aussi dañ ko waxal ci loolu beneen mbir bu gën a yéeme ñetteel bu may terminer tax ñu jàpp ko tout ça dañ ne kii kat yëpp ñu ngi ko koy tuumaal ñu ngi ko koy tuumaal waaye dañoo dem fekk ko ci logement social loo xam ne état ko moom mu dëkk logement de fonction. logement de fonction moo ngi noonu. waaw qu'est-ce qu'il représente pour le Sénégal. lan la lan la représenté ba mën a am logement de fonction. am logement de fonction. ak ak ci fonction la nekk. ci fonction la nekk. Eh. loolu mu nekkaat lu yéeme. tout ak tamit wax nañ aussi ci wàllu Fulbert Sambou bi. Mm-hmm. man nag ak ñun ñii di wax fii tey waxuñ ne dafa def de yoon dëkk tey di ko laaj. Mm-hmm. ndax yoon kat su la ooyee am na yu xam yoo xam ne ñun ñi moo ñu ko gën a xam sax. Mm-hmm. ba ba mu jaar ñu téye nit pour laaj ko te borom xam-xam yi tamit dañ ne ku jàpp Jérôme Bandiaky di nga am lu bëri lu nga mën a xam ci ginnaaw. exactement loolu laal la bëggoon a. ci jàpp gi ñu ko jàpp. dina waral ñu xam bu fekkente ne moom dafa am luñ ko ñu ko doon commandité. maanaam ñu mën a xam euh, ñoo ñu ñan la. ñoo ñan la léegi nag fekkee dafa def dina leer fekkee tamit deful. Mm. justice nañ ci wax ci ñu lu leer mais fu mu nii daal téye bi yii a tax am na ay éléments yu wër. ay enquête ay tax ñu moo tax ñu téye. macha allah kon xam naa incha allah bala ñu koo bàyyi rek danañ xam dëgg dëgg dëgg lan moo waral ñu téye ko bu soobee yàlla. docteur Bamba noonu la ñuy kiiwee rek incha allah même question euh, maanaam noo gisee arrestation yi y compris euh, Jérôme Bandiaky effectivement donc comme ni que monsieur Traoré waxee donc il a vrai donc donné n'est-ce pas donc les raisons de l'arrestation de Jérôme Bandiaky mu nekk koo xam ne dañ ko daan turam dañ ko daan dégg ci ay affaires yu bare bare bare bare par rapport donc à l'ancien régime bi nga xam ne ni moom moo fi nekkoon nga xam ne li leen seetloo mooy lan muy une certaine impunité boo bokkee si ñoom defal lu la neex tu es léegi boo bokkul ak ñoom xalaat yow wax rek sax boo waxee loo xam ne ne xëy na méngoowul ñoom ak seen bëgg-bëgg wala arrangé wu leen ñu taj la xoolal même suñu président bi dañ ko tëjee woon ci benn opinion boo xam ne bindoon na ko par rapport au magistrat ku si mel ni Fadilou Keita itamit loolu nag dafa jar di dafa jar di maanaam te loolu bërki dem la bërki démb la maanaam bind bind benn benn texte rek waaw benn poste boo xam ne moom tué mon frère. waaw pour pour Fadilou Keita. Ah, léegi ñu am ñoo xam dañuy reetaan. dem kaso ñi yow maanaam nit day dajeeg yow rek ne la yow dinañ la dinañ la arrêté. dinañ la arrêté ko rek te. dañ lay arrêté waaw léegi nag une personne comme Jérôme Bandiak ki nga xam ne mais dañ ko dégg ci ay affaire yu bari le cas de Dambodj mu ngi koy wax mais le cas aussi du journaliste Pape Sané itamit Jérôme Bandiak ki dañ ko si doon tudd le cas n'est-ce pas donc de Fulbert Sambou et Didier Badji aussi dañ ko tudd le cas aussi des tueries yi nga xam ne moo daan am ci manifestation yi dañ ko si daan gis te écoutez Jérôme Bandiaky moom en tout cas jusqu'à présent ñun xamuñu ndax peut-être c'est un gendarme en tout cas ndax il est accrédité nest pas donc pour mën a exercer nest pas donc la fonction en tout cas de sécurité li ñu xamoon bon sniper mooy surnom sniper en tout cas mooy lan mooy ku mën tiire mooy ku xam ne mën a tiire loolu mooy sniper li ñu xamoon mooy moom dafa bokkoon ci garde rapproché wu président Macky Sall avant muy nekk sax président léegi même bi muy nekk président dañ ko doon gis n'est-ce ci sa sécurité rapproché nga xam ne en tout cas dafa am ñoo xam ne ñu habilité pour yor ko lu si mel ne ay euh, garde présidentielle wala ay BIP wala n'est-ce en tout cas ñoo xam ne ne ils sont habilités à ça ñu ko si gis léegi nag maintenant ñun nag euh, du ñu wax ni pour lii ak lii moo tax ñu jàpp ndax jusqu'à présent enquête révélé wul li tax n'est-ce pas donc ñu mais ce qui est sûr mooy comme on va pas revenir là-dessus comme ni ko Traoré waxee en tout cas li ñuy wax le processus de reddition des comptes est en marche bu yàgg léegi moom bokk na si ñi nga xam ne convoqué nañ ko y a aussi d'autres dignitaires yi nga xam ne ku si mel ni le cas de Lat Diop moom ce matin nii à 10 heures lañ ko jox rendez-vous à la division des investigations criminelles hier aussi ils ont nest en tout cas su ma ko mënee wax yoon maanaam lu lu mel lu toll si juróom-ñaar sept cadres yi nga xam ne ñu ngi doon liggéey au ministère des finances ñooñu ñu ngi leen doon tudd en tout cas ci dossier Prodac bi nga xam ne mooy dossier wu Mame Mbaye na en tout cas euh, kenn du wax ni kii moo def wala kee moo def laissons peut-être la justice n'est-ce pas donc faire son travail le pôle judiciaire a été installé depuis le mardi passé ils ont commencé en tout cas leur travail nañ toog xaar n'est-ce pas <coughs> ni nga ko waxee nga ne installé nañ pôle judiciaire financier mm-hmm. pôle boobu lan la ñuy xaar ci moom surtout ci wàllu reddition des comptes est-ce que ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax naa ci wàllu euh, ñi ñi nga xam dañoo jël alal ji ñu naan opération gox est-ce que nekkul opération boobu ñoom ñoo ko nar a effectivement donc Cheikh Moussa le pôle judiciaire financier suñ ko mënee tuddee noonu euh, ki nga xam ne mooy le ministre en tout cas de la justice Ousmane Diagne installé na ko depuis mardi passe n'est-ce pas donc ñoom seen liggéey mooy lépp loo xam ne ni n'est-ce yoo xam ne ni am na ak itamit lépp loo xam ni euh, n'est-ce pas donc ce sont des blanchiments de capitaux wala détournement de deniers publique ñoom ci loolu n'est-ce pas donc la ñuy penché alors dafa bokkoon ci promesse électorale yi nga xam ne ni euh, li taxoon en tout cas sénégalais yi fal son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay mooy li nga xam ne ni mooy alalu Sénégal képp koo xam ne ni dénkoon nañ la ñu gis ni wax dëgg yàlla at yi mujj en tout cas les douze ans de règne de son excellence le président Bass euh, les douze ans de règne du moins de de l'ancien président Macky Sall dañoo gisoon ni wax dëgg yàlla dafa amoon jalgati ci wàllum alali réew mi jalgati bu jéggi dayo ba moom ci boppam nest pas donc mu confirmer ko nga xam ne ay rapport n'est-ce pas donc moom moo épinglé woon ñoo xam ne ni donc dañ leen dénkoon alal léegi moom mu tegoon si concam léegi nag pôle financier bi moom loolu lay ñëw régler te commencé na n'est-ce pas donc liggéeyam tout à l'heure maa ngi wax ni ki nga xam ne ni mooy Lat Diop di ancien directeur LONASE mais itamit di ancien ministre des sports donc moom convoqué nañ ko en tout cas pour des affaires concernant le dossier Mame Mbaye Niang aussi nga xam ne dossier Prodac la nga xam ne moo juróon coow ba ci loolu la ni mooy candidature Ousmane Sonko si lañ ko annulé foofu la jóge ndekete yoo euh, li ñuy wax. Euh, rapport bi bi ñu doon bi ñu doon laam-laame. rapport bi nga xam ne dañ cee tegoon conco. amoon na effectivement dafa nekkoon rapport boo xam ne ndekete c'était confidentiel. ndax boobu sax ñun ñëpp xamoon nañ ndax. ki nga xam ne moom moo fi nekkoon ministre des finances bu bu yàggoon Amadou Ba mosoon alors donc mbir yi maanaam ci gàttal mu ngi commencé di leer ndànk-ndànk kon nag li nga xam ne ni mooy pôle financier moom loolu mooy liggéeyam képp koo xam ne dénkoon nañ la alalu réew mi n'est-ce pas donc ñu saytu ko te rapport yi nga xam ne nii ñoom ñoo firndeel ni kat am na ñoo xam ne kat jël nañ alal réew mi dugal ko foo xam ne ni naka sa dul noonu la ñu ñëw saytu leen n'est-ce pas donc mu leer alors il est il est bien de préciser que ni pole financier boobu ce sont des magistrats yi nga xam des magistrat yi nga xam ni maanaam dañ leen tànn ci seeni biiru morom ñoo xam ni kenn mësu leen dégg wala kenn mësu leen xamal ci yoo xam ne ni en tout cas lu leerul la mu nekk des gens yi nga xam ne ni ils ont été intègres te boo leen xoolee ay mag lañ ay kilifa lañ am na si ñoo xam ne sax bokk nañ si ñi nga xam ne ni ñoom ñoo jugé Hissène Habré effectivement magistrat yi ñi ne ñi bokk ci pôle pôle judiciaire financier. mais loolu est-ce que amul lu muy. mais le procureur wax nañ ne fii jugé nañ fi même président de la république. jeex na mu ngi noonu nag. loolu lañ doon firndeel loolu lan lay <laughs> ah amul lu muy junj loolu. ah am na ah bon en tout cas xaw ma lu mu mën a junj mais en tout cas ñoom bokk na si ñu bari ñi nga xam ne ni bokkoon nañ si cour bi nga xam ne moom moo jugé jugé Hissène Habré pour wane ni ce sont des gens nga xam ne des gens. léegi ñoom nan lañ nan lañ nan a def ak personnes yi nga xam ne jàpp nañ ne taqe nañ ci euh, wàllu finance bi yu mel noonu te jot nañoo génn réew mi te aussi dégg naa ci ñenn ñu ne maanaam li nga xam ne ñoom jot nañ ko jot jotoon nañ ko jël dara rëccagul maanaam état bi moom daanaka maanaam dara rëccagul ko daal. bon effectivement xam nga nguur bu bees bu installé woo nga xam ne ñii fi nekk ñoom dañoo yàgg am ay information que ni effectivement am na ay mbiri alalu réew mi nga xam ne luubal nañ lenn rek lañ si bokk ne lenn lañ si gën a tudd mooy dossier Prodac dossier Mame Mbaye Niang ñu bari ñu ngi naan moom daw na bu yàgg ñii nee nañ dafa dem Canada nee na dem jàngi ñii nee nañ ma nga Maroc ak <laughs> le président Macky Sall bon bref ak lu ci mën a am moom ci boppam xaw man fan la jaar ba génn mais jaaxal na ñëpp mais ala kulli xaal li ci am solo mooy am na sept cadres yi nga xam ne ñu ngi au ministère des finances yoo xam ne ñu ngi ko doon tudd ci dossier boobu ñoom jot nañ leen jàpp en tout cas ba jóbbal leen yoon léegi nag maintenant ñi nga xam ne daw nañ a ah, bon en tout cas ñoom yoon dina def liggéeyam dina def li nga xam ne peut-être xëy na en tout cas bu fekkente ne am na ay moyens yoo xam ne mooy tax ñu revenir n'est-ce pas donc ñu rendre compte parce que fi ne kenn mënul wax ne kii moo def ak kee moo def ndax fi mu ne ci phase enquête ak instruction ak xool lan la lan la kenn ku si fan la responsabilité si teew après ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dénk yoon ñoom ñooy doxal en li nga xam ne ni yoon rek daal moo mën a a wax moo moo mën a régler te ñun dañoo gëm ni pôle bii nii nekkul pôle boo xam ne ça va être un règlement de compte wala pôle boo xam ne dañ koy utiliser nest pas donc à des fins politiques ndax man ñi ma gis magistrat yi ma gis nga xam ne ay kilifa lañ ay mag lañ ils ont servi leur état pendant des années kenn du leen dugal. kon daal mën a déggee comme maam du mel comme CREI yi comme comme CREI yi bi nga xam ne moom la fi Macky Sall tegoon. mais justement ñoom Khalifa Sall ñoom. xam nga CREI yi boobu sax malheureusement maanaam dañ ko dañ ko dañ bokk na ci li nga xam ne ni moom mooy remplacer. maanaam comme comme bañ niñ doon toppee waa PDS ñu toppee leen ko moo taxoon ñu ñu ko ñu abrogé CREI yi. ndax bu fi nekkoon ba léegi ñoom euh, defe naa ñu jaarale leen kër yi mooy gën a mooy gën a métti ñoom ñu jaarale leen fii si gën a doy waar sax mooy mooy mooy ñoom seen bopp l'ancien régime ñoom ñoo abrogé kër yi la parce que ñoom seen bopp dem nañ ba xam ne ndekete c'est une cour bi nga xam ne ni c'est à la traque n'est-ce pas donc des opposants ndax liste bi ñu génnee woon nga xam ne y avait combien de personnes mais à la limite la montagne a accouché d'une souris lañ mën a wax ndax benn nit lañ ciblé muy Karim Wade mais am na ñi nga xam ne cour bi setalagu leen sax ku si mel ni ay lan l'ancien ministre Ousmane Ngom ku si mel ni Abdoulaye Baldé l'ancien maire de Ziguinchor nga xam ne ñu ngi leen doon dégg ci ay mbir yu ñuy def mais balaa cour bi sax di leen setal Macky Sall jël na def na def leen seen wet mais xam nga loolu moo ah, lay wax ne nekkati en réalité politique nest donc moo taxoon mais man pôle financier bii ma gis kenn du leen manipuler kenn du leen utiliser à macha allah merci beaucoup docteur Bamba xam naa directement noonu la ñuy demee ci monsieur Traoré moom itam mu joxe xalaatam ci pôle judiciaire financier bi nga xam ne installé nañ ko. merci Cheikh Moussa di rejoindre rek docteur Bamba li mu wax ci pôle bi donc euh, di am luñ ci yokk tuuti rek muy euh, wax sénégalais yi comme on est dans l'actu commenté pôle bi pôle bu am solo la bokkut ak pôle CREI. enrichissement illicite parce que boobu benn infraction rek la doon topp nit mooy enrichissement illicite mais nag pôle bi du loolu waaw soo xoolee pole bi 27 membres yi fi ne xamal ne beneen liggéey la ñu am mooy tout ce qui est infraction économique et financière. dégg naa sax aussi bu dee CREI la maanaam bu ñu la daanee foofu amul appel amul dara mais bu dee pôle bii la moom euh, maanaam di nga mën di def appel ak yu mel noonu ça veut dire que maanaam lu ñu lu ñu saytu la. Cheikh Moussa lu am solo nga soulever. parce que suñ am xel bu xaw a lënt dañ naan dañuy ñëw pour topp nit ñi waaw déedéet état bi nekkul ci defante nekkul ci vengeance ça c'est très important c'est très important et su ci nekkoon on est dans ci commenté on va dire que dañu nekk ci vengeance Cheikh Moussa dafa nekk ci loo xam ne peuple bi moo ko laaj mooy ki lekkati alalu Sénégal na nga wax fan nga ko dugal nanga ko delloosi te bëggatuñ fal kenn kuy lekk suñu alal non c'est une demande léegi peuple bi nag ci loolu rek la nekk ku def xam nga ku deful xam nga suñ la ooyee defoo nga dem defaan sa bopp nga ñibbi war sa kër suñ la ooyee nga def te xam nga ne def nga te loolu xaalisu dëkk bi am déet mu jeex ñu def fi loo xam ne uh-huh. ëllëg képp kuñ dénkati doo ci mukk jël alal réew loolu rek mooy mbiru pour bi. du leneen c'est pour pour pour pour que les Sénégalais savent que on n'est pas là pour se venger ou autre chose certaines nag disent que ah mun nañ oote nit ñi nga xam ne ñu ngi ci élection wala kii nag nekk tête de liste rek wala léegi déedéet mais docteur Bamba est-ce que yoon la koo xam ne war na delloo alal réew wala ñu ngi lay tuumaal ne jël nga alal réew ñu lay dénkaat leneen ci dëkk bi mais est loolu moom xel xel nangoo ko. Cheikh Moussa loolu xel nangoo ko loolu wow du jubbanti loolu waruñ sax wax a ah, yow jël nga ñëpp a ngi sikk sàkk ne sa loxo setul ngay laajaat beneen poste député wala leneen ak leneen ak wala leneen. du sikki sax maanaam ay rapport ñoo ay rapport waaw waaw xam nga xam nga noonu laa mën a waxee mais ñoom suñ demee ba oola am nañ ay dossiers yu solide mais comme ñun na duñu àttekat loolu la ñuy wax dama nga défendre sa bopp dañ lay jox toujours euh, présomption de d'innocence voilà exactement léegi nag man dama ne sénégalais euh, amul ay kii dañuy au opposant bi wala opposant bële parce que infraction économique la ñu wax mm-hmm. ak financier mun na sax bañ a doon politicien c'est très important maanaam ça n'a rien à voir ak politique daal waaw infraction économique et financière mm-hmm. Sénégal daal li peuple bi di laaj bu kenn lekkatuñ xaalis mm-hmm. gëm naa ni nguur gi moom dañ fexe ba kenn du lekkatu suñu xaalis te ñu ngi leen félicité ci seen initiative yi ngeen jël macha allah monsieur Traoré amoon naa mbégte bu baax a baax dalal la ci sunu plateau di di ah, kontaan la bàyyi rek di am lool donc ci ci ci débat bi ci discussion bi ci actu commenté di félicité aussi d'initiative voilà donc de cette de cette émission voilà di leeral lu bëri population bi parce que nag bu ñu fàtte bu ñu ne suñu peuple bii ñu ne majorité bi jàngul def émission yi leeral leen ci point yi gën a am solo lu am solo pour yaakaar ñëwaat parce que l'homme ne vit que d'espoir voilà donc moo tax opposants yi mënuma nangoog ñoom Sénégal fi ñu tox la jeunes yi mm. mooy ku leen jox espoir te nguur gi liñ gisagum ci ñoom ñu ngi jox nit ñi espoir na leen ñaanal jàppale leen képp ku nekk sa côté am na loo mën a jàppale réew mi nga jàppale ko bañ xëccoo bañ xiiroo bañ ŋaayoo kuy opposé wu dëkk mënut a ñàkk opposant docteur Bamba bu nga ko wax mais que l'opposition soit une opposition objective mm-hmm. opposé pour s'opposer opposé pour pour sa daraja opposé pour leneen soyons honnêtes et que ce pays soit un pays de prospérité, de paix et de stabilité. Et de les remercier pour l'invitation. Merci beaucoup également aussi ñu amoon mbégte bu baax a baax dalal ko moom monsieur Traoré mu nekk directeur u ISI eh, li nga xam ne mi ngi fii ci Kaolack euh, institut supérieur de l'informatique macha allah moom moo ko jiite di ko ñaanal yàlla eh, yàlla defal ko résultat yu gën a kawe njortam ci li nga xam ne liggéey boobu nga xam ne moom koy amal Euh, ba lépp nekk loo xam ne njëriñam la mais aussi njëriñu Sénégal. mais Moussa bu ah. loolu weesoo mais xanaa après di nga gisee ak moom wala moom dina gise service commercial ndax yow sànq ba léegi yaa moom dina jaar ah, service commercial ah kon kon bu wàccee mu jaar ah, jaar <laughs> bureau amul problème euh, kontaan nañu ah euh, di am mbégte ak contact rek. vraiment di am mhm. mbégte ak contact di ko amaat saa su nekk wax dëgg yàlla. ci mhm. occasion bi nga xam ne à chaque fois ñu ngi koy am ngir waxtaan ak sénégalais yi indi en tout cas lennat ci loo xam ne ni peut-être jàpp nañ ne nest donc ay xalaat la ay commentaire la ñu partagé ko war ko partage n'est-ce donc ak ñoom. di ñaan suñu borom lépp loo xam ne ni n'est-ce donc kaddu yoo xam ne mu ngi jubla suñu borom barkeel ko mu nekk loo xam ne ni luy jur njëriñ lépp loo xam en tout cas njuumte la ah ay nit lañ dañuy juum du ñàkk ne xëy na n'est-ce donc de dinañ juum léegi nag ñu ñaan suñu borom mu jéggal ñu ko rek te en tout cas def lépp loo xam ne nii mooy déggan di remercier waat encore une fois de plus euh, monsieur Amadou rek ci invitation bi nga xam ne nangul nañ ko mu ñëw partager itamit ak suñuy téléspectateurs n'est-ce donc ay commentaires am ak ay opinions am sur actualité yi nga xam ne ni jot na xew fii ci Sénégal di ko remercier bu baax a baax di ko ñaanal moom it tawfeex vraiment réussite en tout cas ci ci ci projet bi. jërëjëf docteur Bamba noonu la ñuy jëfa euh, jaajëfalee aussi suñuy mbokk internautes yi rawatina ñi nga xam ne ñoo abona ci chaîne bi di commenter di partager ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy dooleel fu ngeen mën a nekk rek ñu ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax leen jox dig daje incha allah beneen euh, beneen semaine incha ci beneen numéro. salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum saaru système law daal boo xam ne bés ci jaaree léegi ñu indi fi ay boroomi xam-xam yoo xam ne moom ñun moom ñu am talent la ñu ñu mat li ñuy def ñooña bu ko defee ñu dugalaat liin ci wutalaat leen daara yu mel noonu ñoom it ñu toogaat di formé waat dax xam daara ji day tàmbalee benn bu yàggee mu dem ñaar bu yàggee mu dem ñett bu yàggee mu dem ñeent bu yàggee région bu ne mu am fa bu yàggee département bu ne mu am fa léegi projet boobu fan la ñuy jaar ba taxawal lu mel noonu ni muy yombe mooy dañuy songu ab waqfu waqfu la ñuy taxawal lan mooy wax waqfu fu mooy li nga génnee ci sa alal joxe ko fii sabilillah te mu njariñ man fi nekk di continuer di dem loolu mooy waqfu loolu mooy misaalum waqf mooy yow bi ngay dund yi lay mën a jox tuyaaba yu bari la bokk na ci julli yi ngay julli woor yi ngay woor tudd yàlla yi ngay tudd yàlla jàng alquran dox mbokk lépp lu baax rek mais yooyu boo faatoo day dagg léegi nag lan nga mën a def loo xam ne moom da ngay faatu nag mu di la génne indil ay tuyaaba comme kenn na ko société mbay bénéfice mm-hmm. mooy def waqf mooy fob ci sa alal alal ju mën a doon nag nga joxe ko fi comme nga joxe ko ci projet bii man bu ma amoon tey xaalis boo xam ne dama koy def nga xam damay xool fa ma gën a mën a gën a indil tuyaaba ci bii laa koy def ci biir kon mbokk jullit yi yoon a ngi nii bunta ngi nii boo xam ne ñun ñëpp bëgg nañ nekk ay milliardaire yawmal qiyam képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla moo ci nekk ak bëgg yonent bi kooku buñ la ci wooyee moom danga naan woo nga naar bi ci goxum soow da ngay ñëw ne ko kay man maa koy njëkki da nga ciy dem ba jeex def ci sa alal def ci sa coona waaye doo ci yam yaay jug di ko campagne benn jullit bu nekk laa soxla rek mu jël portable am dugg ci compte moo xam Wave la wala Orange yi loo mën yaa xam bu dee mën nga 1000 ak lu ko ëpp defal waaye amaana koo xam ne sax mille francs dana bari ci moom amana ab cinq cent la am amaana fukki dërëm bu ko ca xeeb bokkal alaxira kat bu yàllay fay ku bokk rek mu boole kon aw juróom nga am sax sànnil man dama ne naa ci bokk bay bokkaale gone yu tuuti yi waaye bul fàttee nag bokkaaleel ñi faatu parce que ñi faatu ndeysaan faatu nañ mais ba léegi yàlla ubbil na leen occasion pour ñu leen di mën a bokkal ci lii kon gaawal bokk boole ci sa yaay boole ci sa maam boole ci sa nijaay boole képp koo xam ne faatu na rek te nga man ko cee boole rek booleel ko ci waaye yow mi nga xam ne nag yàlla ubbil na la ci bunti wërsëg gaawal jël som bu am doole gëmmal moom gaaw sànni ko ci dem sa yoon jëlal ñaari million def ci jëlal ñetti million def ci jëlal sa kër def ci jëlal sa pàkk def ci ëllëg àllaaxira ngay xam li nga def lan la